sénégalais yi yëf yi leer na ci ba pare ndax fi nii procès bi lan nga ci dégg déggoo suñu évoqué di affaire viol leneen lañ fi li ñu gis. justement ça nous ramène ci li nga wax parce nee nga dañoo bëgg humilier ko. mais loolu la loolu moo tax tegul tànkam tribunal lu leneen. déet moom waxul ni dañ maa bëgg humilier mais man sama perception bopp sama analyse par rapport ak lu xew tey il bu fekkoon tey jii bu fekkoon tey jii lañ war a def lépp def nañ ko kon fii bu fekkoon lañ war a def lépp def nañ ko. Mhm. fii duñ fa egsi. mais li ma bëgg a wax ñoom liñ jàpp. ñoom ñu ngi ci jàpp mais ñun it defuñu on est des acteurs politiques on est sur le terrain on s'est analysé. on s'est prend des décisions léegi comme ñoom loolu lañ gis te nit lii lañ gis. mais est c'est la solution. boo nee fuir mooy tribunal. dëgg la dëgg la li fa gën tey comme ay bu fekkoon tey ma ku toll ne Ousmane Sonko ak dayoom euh, est-ce maanaam Adji Sarr mënoon na jàkkaarloog Ousmane Sonko xool ko les yeux dans les yeux di wax yenn yi donc d'où d'où son absence euh, ba ñu bëri mënuñu ko expliquer en fait. mais xam nga mooy loolu mise en scène bi. parce que candidat boo kii euh, une personne boo xam ne dañ ko préparé jox ko ay de langage lii ngay wax ni ngay taxawee nii ngay doxee ba sax ni ngay solo dañ koy wax ni ni nii sol ñun mise en scène boobu lañ leen dul dimbale pour ñu exécuter seen scène théâtrale boobu. mënoon ngeen ko mënoon ngeen ko euh, wàcce comme on dit maanaam démonter cette accusation bu ngeen teewoon xam nga loolu problème bi mooy dafa am l'avant. Mhm. ndax bu ñu ba ngeen bu ngeen teew ci mais avant foofu yow gis nga li ñu enduré dem ba ak dikk ba gis nga li risque yi ci jël yëpp Ousmane ba bakkanam mënoon naa rot ci diggante bi gis nga conti li mu dund lépp gis nga ñi àndoon ak moom li ñu dund lépp am na ñeen ñoo xam ne ba léegi fi ñu ngi ci prison yi kenn waxul ci seen cas léegi est-ce ñu danañ permettre ñu koy répété waat